candidat bi Macky di di choisir ñëpp di ci wax ni candidat boobu du gagné bu soobee yàlla en 2024 parce que mm. dafa fi mu teg sénégalais yi président Macky fi mu dem ak suñu koom candidat bu fi ñëw assumer bilan boobu te day obligé assumer ko gëw ma ne sénégalais dinañ la topp nga continuer di doxal comme ni président Macky Sall doon doxale c'est une parenthèse politique dinañ ci ñëwaat. mais le bilan de Macky Sall pas tout n'est pas mauvais dans le bilan de Macky mais man bi ma commencé. politique ba léegi il a fait du bon. Maïmouna du moins bon. et mais il a fait du bon man ba ma commencé politique ba léegi. samay première interview yu njëkk ya ci yow laa ko defal man j'ai jamais été nihiliste damay xool li ci baax ma téye. y a un a un actif aussi. exactement mais nag ah. mais nag xam nga man gis nga sa table bii dinañ ci ñëwaat laa toog yor kàddu un candidat à l'élection présidentielle de 2019 bu ma juumul fii la woon cette TV bu ma juumul j'étais la seule personne bu waxoon ne même sama kandidaa bu gagné PSE bi dañ koy continuer parce que nous sommes de républicain te daf ci am loo xam ne mënoo ko ci dindi donc moi je suis pas li baax ci Macky Sall xam naa ko mais j'ai toujours dit waa Macky Sall ñu yor budget de commam ay porte-parole am nañ koy waxal yu baaxam ñun ay opposants lañ dañuy xool fi nga xam ne mooy metti ñu aider ko pour moom mu améliorer wu pour ñun tam bu ñëwee change